liy defar Sénégal moo la tax nga taxaw loolu nag dinañ ci ànd ak ñëpp waxtaan ceeg ñëpp di dalal xelu ñëpp ne lii nga xamante ne ñu ngi koy doxal naa ci ànd ak ñëpp ñu bokk ci kujje gi ñu bokk ci parti politique bi ñu bokkul ak parti politique bi pour ñu waxtaanee li nga xamante ne ñun ñoo ko moom ñoo ko bokk te mënuñu ko séddoo muy Sénégal di jaajëfal nag ñi ñu àndaloon ci élection bi muy ñi yore woon les leaders nu ma ko waxee sànq parti politique yépp ñu bokk ci coalition Diomaye président di di jaajëfal tamit ñi nga xamante ne ñu ngi àndoon ak ñun yore suñu kaaraange muy sécurité bi di jaajëfal tamit ñi nga xamante ne ñu ngi àndoon ak ñun yore communication bi wala ñu yore organisation bi ba ñu def campagne gu mucc ayib ba fépp fu ñu dem fekk fa ay Sénégal yi ñu teertu ñuy waxtu gu ne ñu di leen jaajëfal ñoom ñépp fu ñu egg fu ñu eggul te di réserver nag une mention particulière à un homme je pense que j'ai pas besoin de le citer pour ngeen remarquer ça muy le président Ousmane Sonko mention particulière boobu ma koy defal dañ ko ciy ndokkeel ci gis-gisam ci détachement ci désintéressement am ci xalam bu ñor ak ci xalaatam yu rafet yoo xam ne moo tax ñu taxaw coalition Diomaye président moo tax projet bi am candidat ba sénégalais yi amoon yéene jëmmal projet boobu ba xool promesse yi ci nekk yaakaar gu jur naka lañ ko fas yéene doxalee bu nekkoon kenn koo xamante ne rek day wax ne man kese bu dul man du doon keneen ci gannaaw kon loolu du mën a am waaye yemul ci loolu yemul ci loolu parce que dafa takk ndigam takk ay dalam sol yéeram yëndalul fanaanalul guddeeg bëccëg subaak ngoon soit ñu ànd soit ma jël axe ma jël beneen axe muy battre campagne matin au soir 6 heures du matin ñu koy gis muy battre campagne 2 heures du matin ci bëccëgu ndar kam ci suba teel donc jaar na fu ne def na lu ne te lu ci nit ñi gis rek ci lu fës nañ xam ne lu ñu gis mu def ko ci lu fësul moo ëpp solo ci la waral résultat bii tey kon mënuñu ko bañ a beral loxo te bu ngeen seetloo saa yu may jëf prise de parole dama koy mujjee pour que nit ñi doon bu ñu dee tàggoo nit ñi nekk lu ñu mujjee retenir parce que bo bëgg naa bu nit ñi retenir dara ko loolu bokk loo xamante ne ci discours bi nu mu gudd gudd wala nu mu gàtt gàtt loolu du bokk ci lu ñu fàtte kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan may ko wér-gu-yaram ba yéene gi nga xamante ne ak ñu ci àndal yépp ci liggéey bi am na ko ci ñu mën ko doxal ci senegal mu Sénégal Sénégal gu naataange Sénégal gu ñu bàyyee ko xel gën ko fonk ci àdduna ak euh, ñu teg ko teg ko tamit ci loxo yoo xamante ne ay loxo yu wóor la combat yi nga xamante ne daan nañ ko xeex mu doon combat yoo xamante ne combat suñu génération la mais du doon combat prochaine génération bi parce qu'il nous faut avancer résolument vers le projet progrès économique social et culturel lii moo nekkoon li ma leen bëgg a jéegal ci kano maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm salaamaaleykum wa